صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله رب العالمين ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma jinna min xaas min musibati do xaasa ñu ngi ñaan yàlla mu yool ñu suñ musiba bi di suñ xarit suñ sëriñ Mawlana Cheikh Maay Seydi wax mu ne bu ñu yàlla xamuloon luñ mel ni bu amee lu ñuy wax mun naa am peut-être day duñ xam lu ñu wax waaye comme yàlla mën nañu ñi nga xam ne bu leen musiba dara ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi wax inna lillahi wa di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yool ci suñ musiba bi te yàlla na yàlla xaare Mohamed Bilal Kabir Cissé àjjana te may waajuram bu góor bi wér yàlla may ay waajuram xolu muñ ñu ngi sant yàlla bu baax ci bës bi di fàttaliku bu baax suñ sëriñ Mawlana Cheikh Massane Cissé parce que 1977 ba fi américain di njëkk a ñëw moom imaam dama wax na am naan taalibe américain ñu bari nax imaam day wax rek demul sax kaddu naa gi faase wu ko mais bañ ba gis américain yi ñu commencé ñëw ñu ñëw dëkk Medina takk fi jabar ñu takk ci ñoom xataa sëriñ bi sax amoon na ci soxla ba tey porte-parole am na ci jabar ñu bëri jaxasoo embrassage boo am imaam takki woon ñu ci benn baat rek moom dafa gëmoon ne ay alxuraan bi yàlla wax ci alxuraan ne képp ko yàq ci kaw suuf wala nga rey fi nit dafa mën na rey nga humanité bi yëpp waaye man ahyaa fa ka annama ahyaa naas jamian boo ci dundalee kenn dafa mel ne dundal nga ñëpp loolu nag bu ñëwee tey gis ki nga xam ne tey mu ngi juddoo Medina yaroo Medina tekk américain nga xam ne ba amee sept mois la fi ñëw lu mel nii dal ko te ñu gëmoon ne yun allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu ñu wax te bokkoon ci principe de base yi nga xam ne imam Assane moom la gëmoon doon ñu ko inculquer mooy al mu muslimu man salima al muslimina min yaddi wa lisaani jullit mooy ki nga xam ne musal na jullit ñi ci loxoom ak laaminam beneen bi nga yàgg dégg ci bàññee ci xutbaam yi mu ne kullu muslimin ala muslimin xaraam dëmm woo ma maaloo wa addu yoon ci àlama salaam mu ne jullit bu nekk dafa xaraam ci moroom moom jullitam mu tuur deretam wala mu jël àll yàq alalam wala mu yàq daram mu ne nañ nekk benn bennoo googu nag nga xam ne tey Chaasan moom la def ci suñu biir ba ñun ñu bëggante ba buñ ne américain rek ñun ñëpp suñu xel dem ci Chaasan mi nga xam ne dañu ko daan ooyee le marabout des américains dans les années quatre-vingt ñu bëree naan jaaxle bu ñu naan toog dégg benn sëriñ muy làkk anglais parce que boo bàyyi ci gis-gisam gisoon na ne imam mii comme moom bàyyi demul états uni war na am ku ko demal états uni mu jàngaloo imam anglais defloo ko formation London ba li bàyyi di génn àdduna Londres imam jàngi njàng angale moo ko meen mu mun a nekk foofu imam ak Baye Niass ba lu ñu waxanteeg ñu mun ko firi foofu Cheikh Assane jógee fa war a mën a dem continuer cursus am États-Unis ba ni Baye génne àdduna sëñ Aliou remplacé ko 1982 ba mu defee MBA ba pare mun a ñëw jël ma gi fii continuer nag mission bi mu doon dem dem États-Unis di dem gis nañ ko ba taay ci Facebook bi nga gis imam jiite korité sax États-Unis relation am na diggante États-Unis ak Medina Baye nga xam ne tey ñu ne imaam war na ma benn livre mille deux mille sept benn livre bu ñu bind The Book ñu bind ci The Hundred ñu ne les cent livre bi couverture bu ñu la ñu bind ci les cent ñu ne cent marabu yi nga xam ne muy religion yi nekk États-Unis cent yi nga xam ne ñoom ñoo fa ñoo fa ëppale taalibe ñu ne imaam mooy premier marabu bu dëkkut États-Unis bu am cinq millions taalibe États-Unis ci mille deux mille sept nga xam ne loolu nekkul lu ndaw kon ñun États-Unis fii ak ñun benn lañ. fii Medina Baye booy dox xale yi ak américain dafa mel ne benn la ñoo fi mel ne ñoo màggandoo ñoo yarandoo parce que ñoo jaarandoo ci institut africain américain daara Seydi Cissé bi daara naar yi ñun ñëpp naar yi ak yëpp ñun fii benn lañ ni fi awsa yi nekkee naari gànnaar yi nekk fi dafa lay fàttali jamono rek Medina Baye cër bu ko yàlla may ci àdduna bi jamono bi fi événement naari amee naari Sénégal lépp a dawoon ba mu des naaru Mauritanie yi nekkoon fii Medina Baye naar bu ñëwoon Medina mucc nga ba ni événement yi jeexee ba naari dellu siwaat surafaa yi nga xam ne tey ñoo gën a tedd Mauritanie tey ñoo dellu siwaat événement boobu dafa meloon rek loolu la gars yi bëggoon créer fii au contraire mu am effet boomerang bi mooy lañ doon def contraire bi moo am parce que Cheikh Mohamed Mohamed mii dem xale bu ndaw la mais wane na relation bu étroite bi nga xam ne moo am diggante États-Unis ak Medina Baye grâce ak xam-xam ak pertinence ak vision Baye Niass bi mu jaarale ci Mawlana Cheikh Imam Assane Sy imam nag tey boo tey dafa mel ne tey rek ñu ne la imam Assane Sy moo génn waar image boobu la ñëpp di parce que tey mbëggeelu imaam moo feeñ ci xale bi moom la ñu gisaat ci relation bi nga xam ne tey moo am américain mënuñoo jooy parce que gis ne Sénégal yi ñoo leen gën a jooy Mohamed américain mënuñu am lu ñu gën a naqari parce que gis ne Sénégal yi ñoo leen gën a am lu leen naqari américain tey liñ sañoon mun ko def tey ñu xam États-Unis ni mu toll tey xool leen George Donald Trump états Iran la ñu wax ne moo tuumaal def benn bato Amérique dara Donald Trump nekk ba Amérique digal chef d' état major États-Unis bu ak d' état major bi bu Iran di moos ñu ngi ko fekk ba Irak rey ko ci avion bi lañ taxaw rek sànni missile rek mu rey ko ngeen dégg coow lu am diggante Irak ak États-Unis benn nit rek États-Unis buñ ko bëggee rey rey ko kon xam nga ne bu mel nii lu mel ni amoon bu du woon question diine la kon leneen la ñuy wax fii waaye alhamdulilah rabbil alamin ba ñëpp laa ilaha illallah muhammadur rasulullah moo ñu takkee te moo ñu takkee ba faw te baat boobu nag tey su ko fekkoon Abdou Aziz tey nga xam ne seetaan nañu hommage à imam Assane bi soo xoolee tey ci vidéo bi bañ koy rob awsa boobu yore woon kees gi mooy Abdou Aziz soo gisee balaa ñuy dugal kees gi imaam awsa kii américain bu amoon doole boobu téye kees gi mooy Abdou Aziz ñun bu ñu daan julli si imaam bu ñu ko jël waan fajar këram muy ñëw julli si Abdou Aziz bu taxawee ci kanam kenn du taxaw parce que ponkal la donc xam nañ ko bu doon moom keseeg ñii moom xam naa beneen côté la jëloon waaye nag nit ku ñëw juróom-benn songal ak jaasi nii rek la mënoon defee ñu ngi koy ñaanal yàlla na na ko la jamono imaam comme ni ñu xamee américains yi bëri fii tey génération par génération la génération bii nag génération Mohamed ak génération yi ci topp yëpp li leen fi indi rek moo yàlla rek fii ku jógee Amérique ñëw fii yàlla rek la ñii jógee Sénégal dem Amérique xaalis lañ fay wut mais ñu jógee Amérique ñëw fi yàlla rek la yàlla jógee na alhamdulilah tey ba américain te am nañ image bu rafet bu leen mi dina bàyyi woon ne ñun Mohamed gisuñ ko américain Mohamed gisuñ ko Sénégal Mohamed dañ gis rek benn jullit la ci biir jullit ñi jullit ñëpp a ñàkkandoo ñoo tax ñu ngi koy jaale mboolem umma islamique bi di ko jaale a tijaan di ko jaale waa waa Medina baa Niass yëpp du ko jaale imam Cheikh di ko jaale Cheikh May di ko jaale mbooleem njaboot de Serigne Aliou parce que tey bu ñu amee chance américain ñëw fii Sénégal wax dëgg yàlla imam Assane Cissé la te tax imam duñ ko mus a fàtte bés bu ne rek day wane rek ne tey la fi gën a nekk tey rek maa ngi gis ne bu ma ma imam ne na nangam ak nangam kon tey moom ba tey tey la fi gën a nekk te tey œuvre am ba tey moo fi nekk te du mus a dañ institut islamique africain américain day nekk ba parce que itteem yëpp imaam mooy jàng jàngale liggéey jaamu yàlla bi bàyyi wax moom moo ko taxawaloon moo waral nag lii dañ ci war a jàngee ñun ñëpp moo Mouhamed mii dem na àjjana la jëm ñun ñëpp am nañ ci lu ñu wóor parce que ca ci ci shahid dafa shahid dafa texe te tey waxuma la sax moom waaye ñu fekkee rob bi sax seen yaram arab na safara parce que tey buñ ne néew buñ koy jullee su fekkee élimaan gi baal nañ ko te baaluñ néew bi baaluñ mbooloo bi ñu baal néew mi baal mbooloo bi su fekkee baaluñ élimaan gi waaye baal nañ kenn ci mbooloo bi te baaluñ néew bi kooku dina tax ñu baal ilimaan gi baal néew bi su fekkee nag néew bi kuñ baal la dinañ baalaale ilimaan gi baalaale mbooloo mi kon tey ñëw fii sax tey bu su feet la bu su àjjana la sëriñ Aliou Seye daan na wax benn ko yow gis ni Medina Baye saa ah, saa yu amee dëj bu mag doo ñëw mu ne ah sëriñ bi loolu feet na mu ne ko loolu mooy feet ci ñun parce que mu dem àjjana dara gënu koo nekk réer moo tax ñu wax ci turu mbawooti Cheikh Assane ñi nga xam ne tey ñun ñoom ñun ci ñoom lañ ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun di ñaan yàlla ñii def lii yal na yàlla nit bañ feeñal leen xam naa ne gàcce mënut a weesu tey ñu gis lii booy bi am ñu ngi leen di ñaan lii ñu gis tey waroon na tax ñoom ñu dem tuub jébal seen bopp yoon wane ne lu bon lañ def te lu bon lii yàq deru imam yàq deru Medina yàq deru Sénégal taxul mu daj Amérique ñun ak ñoom ba faw lay doon ba faw Medina Baye bu ñu bëggee dem Amérique nañ dem Amérique parce que ñu mën a ay imam ay doomu imam ay Medina ñu bëri fi ay citoyen américain lañ dañu am double nationalité niñ leen gisee fi Sénégal ñu nekk Sénégal noonu lañ amee droit dugg États-Unis nu leen neexee kon ñun ak ñoom brassage boobu ñu am day nekk ba faw ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla wattul ñu suñ Medina gi yàlla na yàlla wattu ñu dëkkee Medina gi suñ mbëggeel ci bàññees yàlla na yokk bés bu ne suñ mbëggeel ci bàññees yàlla na yokk jamono ji nekk yàlla na yokk jamono ju ne li ñu bàyyi dig dëgg la yàlla nañ ko gëm te yàlla nañ ko topp yàlla nañ ko jëfee Mohamed mii dem yal na nekk dawal bu yiw yàlla na yàlla wattul ko njabootam gi li fi des wattu Abdou Aziz Abdou Aziz may ko kàttan may ko wér may ko mboolem américain yi fi nekk xamal leen ne tey ba tey yu wil kam fii seen dëkk lañ ñu ko imam dañ waxee yu wil kam soyez les bienvenus ba tey seen dëkk la yàlla na yàlla wattu leen fi sàmm leen fi lañ fi ut si ba tey du fi jóge na ba tey du jóge Medina Baye ba faw yàlla day nekk Medina Baye ñu ko xam xam nañ ko ñu ko xamul xam nañ ko buñ ne Baye ëpp na plus de cent millions taalibe ci àdduna bi loolu nekkul caaxaan nekkul propagande te tey ñu xam-xam na ñu xamul ñu ngi leen ñaana yàlla yàlla nañ fexe ba xam wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu